consommer local bi nga xamante ne rek notre première dame mu di euh, euh, soxnaay euh, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay Pape may ma ñaari image yi ma la yónnee léegi waa régie mu nekk loo xamante ne rek macha allah dex ko mm-hmm. démb abima bi nga xamante ne def na ko yére bi mais in Sénégal la montre bi mais in Sénégal la sac bi made in Sénégal la dàll yi mais in Sénégal la moom ak boroom këram ñoom ñaar lépp lu ñu sol mais in Sénégal la waaye ki nga xamante ne moo di la première dame Sénégal Pape ma image yi ki nga xamante ni rek moo di la première dame du Sénégal ima euh, euh, sañse bi nga xamante ne macha allah def na ko askan bi ñëpp rafetlu li nga xamante ne rek moo di sañse bi waaye nag du ñàkk li ñuy wax saa su ne ab réew ñëpp mënuñoo bëggandoo. Mhm. ñii bu ñu d'accordé dina am ñu naan ah, yére ba dafa lii musóor ba dafa lii lee dafa lële waaye euh, habillement bi nga xamante ne def na ko ci consommé local bi nga xamante ne Ousmane Sonko ba muy nekk opposant yàgg na kaa xeex dem village artisanal son excellence mu faloo ba léegi ba sax tey li mu sol jàkkaarloo ak Macron. son excellence yëre olof sous forme de turki mhm. la sol mu nekk loo xamante ne lu rafetlu voilà mu ngi mhm. noonu première dame ma bàyyi la nga décortiquer lam sañ si ak monsieur bu simple bi non dama ciy dolli sax même le comportement <laughs> c'est-à-dire uh-huh. euh, euh, ñàkk envier les waaw ñàkk a envier les <laughs> occidentaux c'est important c'est-à-dire gis nga gis nga lii bu amee mhm. dafa dafa am loo xam ne bu ko président Moussane def ñun duñ ci yëg suñu bopp mm-hmm. ay téléspectateurs la ñuy doon mais lii bu amee maanaam da ngay yëg sa bopp mm-hmm. tey jii maanaam day mel ni yaa fa dem mm-hmm. cest à dañ ko manqué nee naa ñun nañu nit représenté rek mais maanaam président Sénégal mënul neex ba président dugg ci kër gu nekk may la ceeb dëgg la wala mu may la diwlin lim la mën a lekk moom mooy représenté la dignement surtout nag bu ñu avancé ci biir da ngay xool équilibre bi ko en tout cas sañse bi made Sénégal bi loo ciy wax dala tête aux lépp Sénégal lañ ko defaree non non bi tamit aussi ah. waaw ah, ah. lii lii démb la lii dafa doy waar. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga lii boo ko defee kenn du la ne boo. toogee ndeysaan dañ daan am ay première dame wala xale jigéen lépp made Sénégal de tête aux mu nekk lu rafet. non dafa doy waar mm-hmm. lii xam nga bu ko defee. Mm. fi ne nii ñaata ñaata ñaata nit ñu ko gëm. Mm-hmm. ñoo war a daw ci tayri na ko defal. waaw bari na fi. xam nga mm-hmm. yokkoo koom-koom. Mm-hmm. waaye waaye loo def ak loo lekk loo naan. Europe pour lan lii mooy dëgg. Ngoné sañ sa première dame bi jekk na simple na sans maquillage mel ni Aïssatou simple lool sax <laughs> waaye ñàkkul ne am na ñoo xam ne du ñàkk ñi ngi critiquer la mu solo na mu musóoroo. <coughs> waaw loolu du ci ñàkk Aïssatou wax dëgg yàlla vraiment. première dame ni mu solo wax dëgg yàlla rafet na classe na macha allah gisuñu def bu am bu am classe mm-hmm. qualité bi la surtout ci robe bi mu ko ñaw ak ki nga xam ne mooy président son excellence Diomaye moom tamit daal di def li nga xam ne mooy mooy moom tamit costume africain bu baax mm-hmm. macha allah ànd ak soxnaam te lii dama dama koy rafetlu mu nekk lu naturel musóor boppam sol li nga xam ne ne macha allah tenue tenue africain la mm-hmm. ba pare am na ci sax ay nit ñoo xam ne du ciy critiquer naan namoon nañu Marème Faye Sall parce que ci sañse beeg yooyu parce que ñii lii taxu leen a parce que comportement bi mu wone mhm. dafay wan ne parce que tey bi ko yi takkee ñu naan deuxième dame bi dafa bëgg àdduna mhm. day ànd ak ay bongomaan day def nangama nangam xam naa ñu ngi koy xaar ci tiktok bi mhm. fu mu war a toogee di baatere ñu ngi koy xaar ci tiktok bi fu mu war a toogee di def nangam nangam waaw waaw waaw deuxième dame bi waaw c'est sa cousine waaw kii mooy aaw bi en même temps cousine la mooy cousinam la waaw papam lañ fa fekk Euh, mhm. cest a dire doomu doomu nijaay lañ doomu bàjjan. mooy première femme bi mooy première femme moo nekk nii. Mhm. Euh, mu jàng loolu nag am ay diplôme mhm. ñu bari xamuñu loolu donc elle est diplômée macha allah kàngam la. parce que euh, papa ji bi ñu toogee di waxtaan ak moom. bi mu ñuy libal njabootam rek def na ñii ay médecin lañ ñii ay juriste lañ. ñii ay avocat lañ. macha allah dafa bàyyi lépp donc toog di. waaw pour loolu pour deuxième dame bi la d'après li ñu doon wax boobu ba tey sax gisuñu ko. mu génn wax wala dara mais tam première dame bi benn gis nañ ni mu simple gis nañ ko ni mu naturel mm-hmm. gis ne ko macha allah teint caramel bi <laughs> deful deful deful <laughs> ay maquillage xeesalul moo lay wan ne ci comportement bi yaakaar naa ne jomaay ni mu mel modeste mm-hmm. wane ci li mu nekk loolu la loolu la loolu la indi mhm. moom la ay soxnaam indi te yaakaar naa ne muy première dame mhm. muy deuxième dame mhm. képp koo xam ne da ngay toog pour ree leen wala gis leen ci lu ñàkk fayda wala gis leen ci ay détails lu mel ne ay baatere nekk ci tiktok bi di def yu manquant yaakaar naa doo leen non doo leen gis <laughs> parce que boo ko xoolee nga xam ne classe la sol robe bi mu sol robe robe bu am classe la robe bu simple la bu naturel si saa si xool kan moo ñëw robe bi li ma duggee xool ma gis kooku tenue yi mu ñëw ay tunique ay mm. grand boubou mm-hmm. utiliser matière u brocart utiliser ay chiffon lan lay mm-hmm. utiliser yi nga xamante ne tey jii boo demee marché da nga fekk da nga ko fekk mais mm-hmm. jënd de ay tissu deux cent mille la ñuy dem jënd ay tissu cent cinquante mille bàyyi ko fa te amaana sax booy xool métrage bi dina la cinq mille dix mille quinze mille mais création ak design bi mu def ci yére bi dafa rafet ba pare am classe ci ay dàllam ci saagam ak ci xeet xeetu musóoram moom daal gis nañu naturel ci moom wax wax dëgg yàlla bu fekkee première dame yu mel ni yaakaar naa ne ñun soxla nañ ko mm-hmm. Sénégal ba pare xam nga ne day yaxanal ba pare di dundee li nga xam ne mooy consommer local ci ci ay ci ci tenue bi mu sol bu leen neexoon tey nañu incarner leneen parce que am nañ ko en tant que jabaru président mais simple na du maquillage du dara wax dëgg yàlla macha allah kontaan xam nga ne tey bu ñu doon góone première ko tey mu nekk ci cheveux yaa bu ne mu dugg lu ne mu dugg ci borom <laughs> bongo maan yeeg yeneen ak yeneen ñëpp ñëw nekk ci mais li am importance daal mooy boo jiitee réew da ngay joxe un bon bon exemple te lii jomaay def ànd ak soxnaam mm-hmm. déplacé ñu sol li nga xam ne mooy tenue traditionnelle mm-hmm. dem jàkkaarloog li nga xam ne mooy nasaraan si dañoo dellu si waat valeuru Sénégal mais dañoo dégg delloo si waat valeuru africain mm-hmm. mais delloo si waat nañ ki nga xam ne moom mooy valeuru Sénégal wax dëgg yàlla bi ma gisee seen comportement ni ñu defee déplacement ak dara dugg France ma macha allah ñëpp a non man na mu sañsee man automatiquement. Aïssatou yow da ngaa simple yow maa la dugal ci rosa ah, sax. bilaay gis nga gis nga yàlla <laughs> euh, euh, ma ci gis sax uh-huh. gis nga euh, yàlla bu defee nga nekk koo xam ne. Mm-hmm. dañ lay roy. Mm-hmm. yaa mën a neexal kër yi yaa ko mën a naqal. Mm-hmm. dëgg la. gis nga gis nga lii. lii joomaay def. te jii ku mu neex man mii su ma neexee suba suba ma ne di joomaay sol dama koy sol te dama koy mën lu leer nga wax des fois nga nekk te baa xam nga ni tailleur yi dañ ciy sawar ah mais bien sûr lii mu sol nii yàlla xam na ni ci plateau lañ toog mais doguma la depuis démb si guddi bi ma wàccee noonu toog euh, sama kër di xool ki ñaw daa ki ñaw yére bi ku defar ki defar dàll bi mais boo ko gisee da naan ndax kii tubaab la ki hmm. defar dàll bi dafa defar dàll bi euh, euh, prestation de serment son excellence moo ko defaral dàll yi mu sol hmm. duma ma def publier mais moo ko defaral daal yi mu sol démb mm. daal bi première dame sol da ko publier mais nga daal bi daal bi rafet na de consommé local nekk mm-hmm. mais waa ji mi ngi sol bii xeetu costume def ci markam kon bu leer la ni dàll yi son excellence du sol yëpp kookoo koy defaral. kon tey kii defaral sa borom kër dàll mais plaisir la mu defaral euh, soxna euh, euh, première dame daal. te tey jii comme li ngeen wax day renforcer li nga xamante ne rek moom moo di koom-koomu Sénégal. koom-koomu Sénégal en tout cas made in Sénégal bi moom macha allah. moom dafa am solo ñëpp lép nañ ci. lépp lépp lépp li ñëpp moom kontaan nañ ci vraiment dafa rafet ci image en tant que première dame. Mm-hmm. wax dëgg yàlla nuñ ko gisee. moo ki nga xam ne ne moom mooy moom mooy borom këram wax dëgg yàlla mhm. kontaan nañu ñii daal sigil nañu Afrique mhm. wane na munoon nañu faa dem mhm. bu ko neexoon def ensemble tailleuram jëkkëram def cos costume am président Diomaye mais loolu yëpp dañuy delloowaat li nga xam ne moom mooy valeur u Afrique dañuy dellowaat li nga xam ne mooy valeur u Sénégal lii nag képp koo xam ne kuy sénégalais yaakaar naa ne mhm. nañ la mhm. tey ñun ak sama genre gi ñu ci na naan lu jógewul États-Unis bëgguma wala lu jógewul France bëgguma mhm. te yaakaar naa ne ñi koy defar foofu ay cordonnier lañ te cordonnier yooyu yooyu tey ñi ngi fii Aïssatou ma may léegi sac bu rafet boo xam ne sac bu rose te naa ne ci fin émission ni dinaa ko mais sac bi tey ak mm. yi nga ma defare ku ko bu la nee tey Sénégal nga ko defaree waaw tey bu ñu la tey Sénégal lañ ko defaree da nga naan déedéet parce que nañuy gëm suñu bopp utiliser li ñuy defaree ci réew mi. Mm-hmm. damay dem si marché di jënd der. Mm-hmm. wala tey di jënd croco di jënd matière bi. pour mm-hmm. defaral samay client mais da ngay gis koo xamante ne da koy jënd pour yóbbu ko bitim réew. yaa ngi wax sànq lu am solo ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diaspora bi. et pourtant ñoom dañuy xool der bi gën a baax dañ naan Sénégal lañ ko mën a amee. ci der bu baax boobu noonu tey jii nii ñoom ci la ñuy def tout commandé ko ba tey te sénégalais bi dem tey ci marché bi. doo ko am. Mm-hmm. parce que ñaan dafa nekk en rupture lu ko lu ko waral. Mm-hmm. tey jii tubaab bi jënd na ko. Mm-hmm. tey jii kon li nga xam ne mooy made in Sénégal euh, son excellence ak le premier ministre bu ñu ko valoriser tey ngaay euh, euh, tey muy uude bi ku ci nekk tey da nga koy gën a jëmbal. ndax boo xoolee depuis ce matin abima bi nga xamante ne première dame def na ko ba tey mi ngi nekk lu am solo macha allah te brocart la sol. te brocart dafa bari catégorie mais macha allah mi ngi def sañse boo xamante ne. mais tissu bu am valeur am valeur la rek. boo gisee ni mu ko solee ak ni mu nga xam ne moom la ko defee rek. wax dëgg yàlla danga koy xool la nga xam ne na marque la sol mhm. te lépp Sénégal la jógee moo tax ma ne la lépp loo xam ne nasaraan si fii lañ koy jëndee di ko yóbbu yaakaar naa nu ñu gëm suñu bopp mhm. di dimbali ñi nga xam ne ñooy ouvrier tey dangay xool tey mhm. ci ñi nga xam ne tey ñoom ñooy defar salon yi tey am na salon yoo xam ne tey boo ko tiimee bu ñu la nee salon bii Sénégal lañ ko defaree tey ñu ne déedéet moo tax dañu war a gëm suñu bopp dañu yaakaar ne ne surtout ñun jigéen ñu bu ñu solulee tey ji sac sac bu jógee États-Unis wala soluñu sax chemise wala dara pourtant tailleur yaa fi xewalee oo bu rafet nga ne oo bi ndax prêt à porter la États-Unis la jóge wala Turquie la jóge te fekk ne fii la jóge dañ koy ñëw ba mu rafet ñëw jaay la kon ñun sénégalais ñun suñu bopp ñoo war a gëm suñu bopp di jàppale suñu doomu réew yi nga xam ne dañuy kii xoolal boo demee Médina soo demee Medina ñaata mm-hmm. dañuy ñoo fa nekk tey bu ñu làqatoo tey jox la dall boo xam ne cordonnier boo ko defaree ak talon beeg yépp ni mm-hmm. dàll bi ku bu dàll bi di mel tey boo ko xoolee bu ñu la nee dàll bi tey Chine lañ ko defaree wala États-Unis doo ko weddi kon nañu gëm suñu bopp man loolu laa bëgg tey jii li nga xam ne président Diomaye loolu la woote mm-hmm. lii dafa yëf dafay suqali li nga xam ne mooy économie réew mi mooy li ma waxoon ci ceebu mbay mi tey jii bu président mënut a tëb yokk wàññi li nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp tey ji buñ ko jëlee defar ko ba mu baax mettre ko en valeur yaakaar yaakaar naa ne Sénégal danañ ko soxla mhm. tey ji consommer local dinañ ko soxla defar talon bi ba mu rafet mhm. defar saag yi ba mu rafet ah ñuy ñuy bay di dundee usines yi nekk fi di créer ay parfum de marque mhm. nit ñi di ci jënd tey loolu dafay sukkali Sénégal ndax famille boo gis tey am na ku ciy liggéey nangam ñii cordonnier la ñu ñii dàll la ñuy defar ñee saag la ñuy defar kee day dafay coiffé kee day def nangam a nangam dina dem ba nga xam ne lépp loo xam ne dañ koy soxla lu daan jóge bitim réew day dem ba nga xam ne Afrique fii lañ koy amee kon nag euh, merci beaucoup président Diomaye ak ki nga mhm. xam ne mooy première dame bi mu àndal comportement bi ak ni ñu ko defee nii mhm. yaakaar naa ne képp kuy sénégalais rek yey première dame man mhm. mu takk sax loo xamante ne rek macha allah c'est à a rafet euh, Pape may ma tey son excellence mu sol tey moom ab murid la macha allah def turki bu baax euh, def abima boo xamante ne tey pour première fois fële ci diwaanu France ñu gis ab président boo xamante ni rek euh, tenue dëkkam la daal di andi rawatina rek tenue traditionnelle mu di son mm. excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu def ab euh, euh, tenue bu rafet boo xamante ne bleu de nuit pape image yu tay bi bu mënee ñëw rek waaye der ko mu waxtaan ak ki nga xamante ni rek moom moo di son homologue mm-hmm. Emmanuel Macron ñu daal di amal ab petit déjeuner tête à tête gannaaw ba forum ba jàllee waaye itam muy ci ay kaddu yu am solo ci discours boobee nga defal bu am solo foofee nga xamante ne rek moo di ca diwaanu France mhm. mu nekk loo xam ne macha allah ñi ngi koy jaajëfal ci liggéey bu am solo bi tey moo nekkoon mhm. ah, ngi kontaan bu baax a baax suñu d voilà tubaarkaal nekk foofu ci Paris la France ma Diop mhm. Mbacco bi ci taar bi macha allah chérie madame Diop ah, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bàyyu maas macha allah moom nii lay def ci saa su nekk événement lépp loo xam ne luy xew Paris rek France da ciy def taxawaay bu am solo kon nag mu ngi noonu monsieur PDG ñu ngi lay nuyu bu jiwaam moo ñu ko moo ñu ko may gis ngeen